سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والاه وفي جلدي وكتابي يريد كان هناك كل جمع في جيتر في سري في واجو في في جتاي في الشيخ عمر تبو الوالد ak ngëneelam ak taxawaayu jullit ñi ak taxawaayu jàngalekat ñi jëm ci alquran waaye dafa nañ ne ci activisme moom ñu xaj kon foofu ñu koy nañu rek waxtaan te yaatal ko lool ndax lëndamaayu jamono ak réer nga xam ne bëri na tasaaroo na ci bopp nit ñi ñooñu leeral leen alquran rek xam bu baax leeral leen ngëneel li ci nekkoon ak njëriñ mooy li wax ñu defaree leen peranti dia pakai muka kali itu jana. Mobrek, moy solution problemmu ada. adina. Jadi jadi itu dia. Dan lain mau menarik dia mari Al-Quran. Al-Quran jauh moy diskur dengan kamu. Lepas ini dapat adina kita boleh min shay alquran ji sàggarewul ci dara luy defar ci biir àdduna wala laaxira mooy jàngale leen loolu nag suñ ko waxee woon néewe yàlla ñu bind àdduna bind suñu xel ak suñuy xam-xam nga xam ne lu waaye bëri bëri xam-xam moo la may lenn ci xam-xamam lu xel sell yàlla moom moo ko may ku ne xam ne yàlla mi la may moo la gën a xam moom mi bind moo xam lan mooy njëriñ moo xam lan mooy lor mu wax ci alquran ala ya'lamu man xalaqa ndax ci bind xamul sa bind alquran ak yoon bi nga xam ne mooy jëlee ci yàlla ñooñu lañ war a de rawatut nit dem ba njortu ne yàlla mi bind àddina jàngalut ñu luy defar wu luy defar àddina suñu àddina daal bu ñu ko bëggee defar dañuy yóbbu ay nit.

daw dellu ci alxuraan ak ci ñooñu alxuraan bu mbir yi baaxee wala mbir yi àdduna ngeen dem ci ay mbindeef yoo xam ne jëlewuñ ci yàlla jëlewuñ ci yonent bi yonent bi ne def noonu kanaa gis leen ne masala mu mën a xew xew bu mën a am ci àdduna boo delloo ci borom xam-xam yi seen xam-xam màcc ci lislaam ñu wax la ci yàlla wax ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon kay alxuraan defar na su àdduna waaye ñun ñoo nangu te jàpp ci njubam te mu jàpp ci njubu ay tubaab ak ci mbindeef yoo xam ne yàlla waxul leen gàddaay alquran ba jamono ji képp kuy yëngatu gisee ci ñoom benn bu ñaaw te saa yu ko mel ni junne suñ gisee fukk yi rafet soo ko mel ni doxul dara jamono ñooñu dañ toll te ñi ëpp ci réew mi kat nee ay julit dañ yàlla leen gëm ak yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon pour ñu génn ci jafe-jafe yi xew ci àdduna foo ñu jàpp ci alquran bàyyi Surya alxuraan ji ñuy jiitu ci lañ jàppoon mu yonent bi ak saxaabaam yi la leen yàlla digoon mu defal leen fekkoon nañ leen fekkoon nañ leen doole amuñu woon gànnaay amuñu woon ndawloo nekkul yow sa alquran lépp ay saa ci alquran rek la ñenn ñi mokkaloon wala lépp luñ mokkal dañ ko am di ko jëfee kami jalur yi génn fa seytaane dugg fa kon ku bëgg sa dëkk barke fexeel dugal sa ci daara mu dem foofu wala nga jël sa kër loolu ko seen daara Malaysia dan buat kubunya Malaysia. Berbahagia Indonesia. bu ñu jeex dégg nga ñenn ñi ñu néew ñoo jéem fay lu mën te dañuy jàppale Yeah.